da gis ko si dóor bi gisatuñ ko te nañu daw ñoo Malika seet si ko dañ koy bàyyi mu nuyoo rek Valdo wala Jibril ginnaaw bu ñu sant yàlla ju seen sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, du nuyu ñëpp aussi tamit di nuyu site bi aussi tamit wasaare TV di koy ñaanal eh, mu nekk site yu bëree bëree bëri comprendre dina ñaanal ñi nga xamante ni tamit yéen si nekk yàlla kattanal leen ba liggéey bi mun a dox waaw ñoo ngi nii fii nii ay doomu Pikine lañ 100 pour cent aussi tamit voilà ay doomu ginnaaw raay lañ aussi tamit ñoo ngi nii si Malika waa dal jaamu nekk suñu jaamu aussi tamit di nuyu waa Malika yëpp aussi tamit voilà di nuyu Sénégal yëpp xam nga di nuyu suñu am du jaamu yi du suñu xarit yi suñu mbokk yi ak suñu dëkkandoo yëpp di nuyu ñëpp. Hmm. Fallou si làmb lan moo ko dugal si làmb. waaw làmb. làmb moom nit tëbul tëb rek dugg si dara yàlla moo moo lay cër si lii rek ne ala kulli lii ngay def yi xam nga boo si dugg sa doo si doo doo ko yëg wala boo boo si dem tamit avec plaisir nga si demee ndax ndogalu yàlla lay doon yàlla yàlla xëyroon ne dañuy bëre après dañuy bëre dañuy bëre quoi. man du ëpp moom fépp laa mbapat quoi man moom ma sens interdit laa mbapat waaw man moom compétir naa fépp waaw foo xamante daal sama tànk bi daal yàlla moo na ma foo jot bi ak kàttan bi compétir naa fa daf dox sama dox. ban boppat la jógee dem drapeau chef ban boppat laa jógee drapeau chef de l'état. est du Iba est du Iba Iba Mar ah, boobu noonu maa ngi jógee làmbu fan am na boo xamante làmbu qualification bi ndangaan sàmbu la woon waaw ma dem chef de l'état am na boo xamante ne tamit funjuñ la woon aussi tamit waaw. ah chef ah, est-ce que du ñetti yoon ñetti yoon laa fa dem Grand Bassam. ñaari Fatick benn bi Kaolack. Hmm. benn bi cent benn bi quatre-vingt-cinq. Hmm, ñaari quatre-vingt-cinq benn bi cent. waaw ah. fan nga si daanee laaj ndàngaay. bi mu Puy. Saloum yi est-ce que du jur euh, fee Diourbel Diourbel la waaw. loolu boobu yaa ngi Fatick. Hmm. est-ce que mën nga ñu fàttali équipe bu Fatick bi bi mu fa nekk yaa ngi ñan woon. waaw ñu fa nekkoon waaw mën naa leen fàttali. kooku kan. moo hmm, xool am na boo xamante ne maag Fodé Sarr la ak kan am na boo xamante maa usine doole la tamit ñoo àndoon ak kan. defe naa ak Cheikh Ndiaye ah ah Tyson 2. waaw Tyson 2 waaw. ak Cheikh Ndiaye bu ma juumul defe naa la woon quoi. Kaolack yaa ngi ñeneen fa nekk. Kaolack Kaolack est-ce que ma xool maa kan la woon Kaolack Kaolack est-ce que du maa Seeku Diouf. Seeku Sum waaw. defe naa maa la woon de Kaolack waaw. ñu doon juumul laal. yaa ngi Valdo li ëpp muy wàcc bi ngay mujj wàcc mu jum zone Sokone bi gisatuñ Valdo déggatuñ fa lan la waaye simple wala waaw simple waaw maa ko bàyyi waaw parce que non lu ma fi def mën du ma ko ci def dama dama dem ba safatuma rek ma baay parce que tamit boo xoolee simple la daanaka li ma si def bari na bëri naa ci bëree bëree ba ba gis sama boobu xamante ne fii laa mun a yem ma bàyyi teew si tamit non tanoor yi tanoor yi daal daanaka ñu bëri bëri naa ñoom. waaw ñu bëri bëri naa ñoom de xam nga. comme bàyyi nga kay ba comme maanaam bàyyi naa simple tey mais du question ne bàyyi naa bàyyi naa bàyyi naa bëri mais xam tamit. Ah, am na am na xam am am na ñoo xamante ne tey comme tamit yaa ngi yaa ngi nekk ak ñoom comprendre nga te aussi tamit bari ngeen xam nga. après aajowatul nga toog di tudd seen tur wala toog di wax si ñoom aajowatul loolu quoi. da baax rek est bu ñu tegee mise 10 millions doo wàccaat. bu ko jaree waaw bu ko ah, jaree. ah loolu laa ma ne la ma ne la bàyyi dama gisatul lu ma ko jaral rek. Ah, waaw dama posé gum quoi parce que xam nga tey aussi tamit nit ku ne rek booy liggéey da ngay avancement nga bëgg si liggéey liggéey. parce que tamit bu dee simple tey am nañu ay am nañu man li gën a tax sama gën a teggi wàññi dama am raq bu tolloog man boo xamante ne tamit fu mu mun a sëgg dafay sëgg waaw yàlla dogal tamit moom mu dem voyage dem Espagne comprendre nga voilà aussi tamit mu am ay ay ay yoo xamante ni tamit aussi ay jàmbaar lañ ñu mel ni Ibso waaw Ibso Saval xam nga booy lañ Famara aussi tamit waaw yaamu yaamu yaamu yaamu Dakar yaamu ba yaamu man ak mo benn papa sama doomu akan la comprendre nga ma amaat tamit beneen beneen beneen sama doomu mag boo xamante ne Omar waaw ñu koy Valdos Valdos ñëw xam nga ñëpp nekk sama booy xam nga léegi après mënatoo nekk di ñàkkante moom si làmb yi parce que am na sortie moom mujjee def boo xoolee man ak Famara lu ñu dajee dafa bëri te aussi tamit Ibso aussi tamit xam nga te ñoom ñu toll si te xam nga bu may mboppa dëggantaan ñoom amuma ku ma xatal maanaam li ma doon may bëriwul ndax boobu comprendre mën naa ne catégorie boobu may def poids léger daanaka man maa mujjoon a ñëw parce que boo xoolee ñu doon bëre foofu baax man maa mujjoon a ñëw. ban catégorie nga bokkoon poids léger man catégorie mu bokkoon man amoon catégorie man dama doon nii rek. man bi nga ciy toll ña nga gis ñoo xam ne naan ñii bu ñëwee si géew gi ñoo fa fal da daan métti. ñi ma doon gis bari nañ de koo xamante ne moom ah Mamadou Diop kase ak wax sonal sonal na ma trop waaw waaw waaw yàlla na yàlla may wér. Mm, kase moom kooku moom wax dëgg fa kooku moom wax dëgg fa neex yàlla maa ngi koy ñaanal wér mais nit ku gore la parce que am na 11 jours boo xamante ma message sax mm, moom ñu déggante bu baax a baax waaw kase moom defe naa ma juumul bëri nañ ñaari yoon. Mm-hmm. non non man maa ko daan ñaari yëpp. waaw mosuma daan moom wax dëgg fa neex yàlla comprendre nga waaw mais ku nit ku baax la aussi tamit kooku moom xam nga jàmbaar la aussi tamit xam xam nga làmb moom làmb baaxoo noonu xam nga tamit làmb dina am ñoo xamante ne say nii lañ doon ñooñu mënoo wax si ñoom lenn comprendre na te làmb tamit xat na xat boo xamante ne waroo wax loo xamante defuloo ko si comprendre nga man lii moo war gën a tax ma wàññi bëre simple wala tax làmb moom bàyyi sax parce que mooy li ma la ni am na làmb boo xam ma mujjee dem nii ma juumul euh, son naa njongoon la sax boobu sax dama mujjee ñaan waaw boobu ib soo moo may mm, mm. xam nga te aussi tamit xam nga te moom moom mu ngi toll si mu ngi toll si dëgg carrière am actuellement nii après nga boo demee di ñàkkante ak moom te aussi tamit bi bay sa waar bar ngay sa waar ba pare waaw da nga koy may mu jàll. waa jublu waa jublu si arène bi. li simple moo la génne li simple. mun na nekk. lan dafa dem bay bëri voilà mun na waaw mun na nekk man moom wax dëgg fa ne dem naa ay ñoom seeti jaar nga xamante ne aussi tamit xam nga. waaw samay gaañ lañ sama waaye lamb bu ñu demee ba xam nga dajewaat ci làmb xam nga aussi tamit xam nga buñ la bëggee may tamit day bëgg xaw a métti te ñu nekk ay xam nga te ñu xam ñoom lu ñuy compétir doo ko compétir waaw mais nag comme li ma daan compétir nag daan ñu doon compétir parce que man du ma doon noppalu mu doon bëree ba sonn waaw du may bëree bëree ba sonn nag tamit mais nag sant yàlla làmb moo wax dëgg fi yàlla mënuñ si wax dara luñ luñ ci mën am si àdduna moo ñu ko may comprendre nga moo tax mënuñu xalab làmb mënuñu wax luñ deful aussi tamit mais ñi nga xamante ne tey am naa possibilité bu pour tudd seen tur noonu mun naa tudd seen parce que ñi ma la tudd nii aw ma ma sens sens interdit si ñoom aussi tamit te ragal mu wax si ñoom mooy Famara Ibso Yaamu Seydou Diane waaw ñi moom aw ma comme maanaam ne damay wax lii wala wax lee comprendre nga voilà ñooñu ñooñu moom aw si yool aussi tamit mais am na ay nit tamit ñu mel ni Eh, arobase Mbaye Mari waaw xam naa kooku sama nit la wax dëgg fa ne yàlla li bi door bu Grand Yoff waaw selemele Tony Junior comprendre nga waaw ñooñu samay nit lañ sama nit lañ daal samay samay doomu ndaj lañ waaw sama nit lañ ñoo xamante ne ñoo doon ñëwandoo benn kër di fanaanandoo di kaf diree xam nga ba tey ni ñoo ñoo ñu nekk ci jàmm naa fa yeewootuñ benn ga mais ñoo ay jàmm lañ sekk te amaana sax fuñ fuñ fuñ fuñu fuñu fu ñu bokkee wala moo bokkuñu sa secteur bu ñu dëkk mais xam nga sport moom du xaajale la waaw waaw moom sport moom du jaxat du kii du jaxat du xaajale la quoi day day boole noonu la demee quoi aussi tamit di leen di nuyu ñoom ñëpp parce tamit man bu mu amee daal bu mu amee bés ku ma si woo di nga ñëw jàpp comprendre nga ak Kalmu Ndour grand waaw grand Mbagnick aussi tamit waaw kooku moom moo di ko ne yàlla sama nit la parce que moom saa bu bu ñu amoon làmb suñu village day bàyyi léppam ñëw dalal si sama kër kon kooku sama nit la daal aussi tamit mais làmb daal làmb a ngi noonu rek. lim làmb a ngi noonu rek. ñu jógee si avec frappe. Valdo def ñaata combat lutte avec frappe. saa est-ce def moom douze combats onze victoires benn défaite. waaw mun nañu wàññi ko si Fallou ñu bëri. waaw naa wàññi si tuuti rek parce que instant yi nii nii nii man maa ngi si maa ngi si fu ma nekk maa ngi toogaay bi maa ngi entraîné maa ngi waaj. comprendre nga man bëri naa ak Pape Mbaye bëri naa ak Marley bëri naa ak Saloum Saloum bëri naa ak naa ak Amadou Camara bëri prise de mer bari naa Saalum Saalum aussi tamit mais actuellement nii fi nga xamante ne fa laa taxatee mbee mooy corona bi ñëwee maanaam am na lu bi nga am sa digganteeg. waaw mun naa si ñëw de <laughs> mun naa si ñëw de mais naa si ñëw de mais nag wax dëgg na neex yàlla nga boo demee noonu daan na ma waaw. mosoo dégg muñal jour boobu. garga de dégg loolu mu ñëw. waaw métti na moom métti woon na lool nag waaw ba ni may wax ak yow nii sax. ba ni may wax ak yow nii jon tey la ma gën a métti parce que waruma waruma daan. pourquoi waruma daan. non dara waruma daan man xam na teel ma ne waruma daan xam naa ko. nga wékk ne garga war laa moon daan te mu ne athlète comme yow. waaw xam nga loolu mooy sport sport da li nga li nga gëm rek ngay indi. waaw si ma ko teg mooy maanaam tey kaw ma ne man war na maa mun a daan te waruma daan te du ma wax dafa ma fu laa ko teg. kon yow ñi nga kon si ñooñ tamit waru ñooñ tamit li ma fi li ma gëm nii rek loolu lañ gëm waru val waru ma mun a daan loolu lañ gëm espoir a demee noonu waaw du question dañ ko xeebal wala dañ ko xeebal qualité am déedéet. dafa dafa mel nag ba tey jii ma yow naw la woo Garga en tout cas daal wax dëgg fa ne yàlla waruma daan loolu moom man maa ko wax si ma loo si kaw. waaw loolu moom su ma déggee sax dafa mel ni kon ba léegi sa xel dafa nekkaat si mu may la devance. non non instant yi moom wax dëgg fa ne yàlla maa ngi ko maa ngi koy ñaanal yoon bonne continuation ba yàlla ñëw xam nga mu yàlla may ko ay victoire ba ñu ñëw ba yàlla fu ñu daj rek baax na waaw fu ñu daj rek baax na. ma déggee sax ku la doon timis. ah léegi maa leer bi de en tout cas daal mais en tout cas yat bi moom fu ma ko soxlaa moom yàlla baax na yàlla na ko yàlla may parce que boo xoolee bëri naa ay combat yu bëri ci kaw bi ñu bëree ba tey. nga jël marle coow li bari te boobu da ngaa dugg géej waaye daan pambaay. waaw waaw mooy waaw. waaw. ñu nekk benn secteur. <laughs> man la maa ngi koy nuyu bu baax champion la ndaanaan la waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax. xam nga tamit xam nga tamit ndaanaan tamit boo bëree moom ba pare da nga koy nangul. parce que boo xoolee combat bu bokk na ci combat bu gën a doon neex man ak moom. waaw. waaw parce que combat bu dama dama dama dama chargé woon poids bu diis waaw bokk na ci combat bu gën a doon neex. mais nag di ko nuyu champion la ndaanaan la parce que day liir sax. tax bi la gën a neex. non du waxuma combat bu ma gën a neex de combat dafa combat bu neex. tax dafa neexoon. non parce que xeex nañ bëri nañ. waaw boo xoolee am na foo xamante ne jiyaat ba <laughs> dañoo dóorante xoolal man maa génn nii moom mu dugg nii si biir ndax ndax kuy kuy takarnaase. boobu <laughs> kuy takarnaase. mu dóor nii ma ma mel ni kuy génn moom muy mel ni kuy dugg ay kuy Dakar naa man maa ngi dégg sa ndeysaan benn rapporteur naan Valdo eh, Marley kur ngi mel ni mbàccum gerte. boobu <laughs> eh. mu naqari woon la mais Pambaay moom wax dëgg fa ne yàlla nag ku mbër bu naqaree bëreel la. waaw loolu naqar xam naa si dara parce que xam mu dafa ne mbër bu naqaree bëreel la moom fu mu fu ko arrangé wul doo ko fa yegg. fi nga noonu la te ndaanaan aussi tamit ndaanaan la wane na ay preuve am parce que am na am na làmb boo xamante ne maa ngi koy seetaan defe naa xaw ma soogoon la xaw ma funjuñ mbapat muy def lu doy waar waaw ndaanaan la champion la ñu ko koy nangul parce que tamit lamb làmb demee noonu képp koo fi gis ñu lay coow rek dafa am foo jaar ba yegg si te ñun ñuy toog nii tey di wax te buñ tëb rek ñun ñu wax suñu tur de déedéet moo tax duñ toog sax. boo ñu gisee sax duñ toog sax wax ne ñi ay ay ay mbër lañ wala ñii parce que doxewuñ ko waxewuñ ko waaw te lépp lu ñu am si làmb dañ ko méritoo waaw parce que dal nañ te xam nañ fu ñu teg suñu tànk doxuñ su luñ suñu yoon nekkul parce que sport bi làmb la rek temps bu gàtt lay jeex man sama mag si la jaar Moussa sa bëri na ba bàyyi waaw musul def lu ñaaw musul wax lu ñaaw kon nag si tànkam la ñu jaar tey sunu leader Mohamed Ndao Tyson si la jaar comprendre nga tamit tànk yooyu la ñu bëgg a jaay silence def fu laa fayda dox suñu dox parce que làmb làmb fu laa fayda koy mottali mais bu loolu weesoo ñëpp lépp lépp ñi nga xamante ne dañoo war a bëre nañu jël ñu bëre. voilà. bu yàgg di wër-wërlu ba sa adversaire dem jëli ji beneen komba sa diggante Ahmed Deme Fallou lan la. waaw sama diggante man ak Ahmed Deme. waa defe naa problème problème mu la. defe naa problème mu amul xaalis waaw problème problème mu promoteur la daal non ba tey maa ngi avancé am ah, waaw man bu ma woon tey tey tey de ma simee ko bëreel ko tàqali koog moom maa ngi am nii de. non promoteur bi daaw moon déggante sama manager lay déggante waaw sama manager lay dégganteel waa ñoom ñooy parce que sama manager moo engagé ba moo am possibilité pour wax ak moom comprendre ñu nangul ko ko tamit. ndax loolu moo tax ñu mu nekkal ñu fa la nga xamante ne lu ñu war a fajal mu fajal ñu moo koy nuyu bu baax comprendre nga mais ñun naa ñoo ngi koy déglu rek saa bu ñu woo boo ñu wowoon tey tey nii nii nii ñu dem si meeku bëre. kon ba léegi kon nga bu Ameth dem génnee fii nii pare nga. non déggoo li ma la man man du ko si wax pour Ameth dem kese de man làmb laa fi nekkal. man ma man maay man maay mbër bi ëpp adversaire si làmb ji. waaw war na ban lobby la mën a teg tànkam na ñii bu ñu ma joxe seen avance pare na pour lekk. man fu mu ne nii sama objectif benn adversaire la mooy Gris 2. Gris feebar yëpp dañoo dajale ma dem tànn city mais gis nga Gris 2 xeetu xeex bi nekk si moom ak xeetu poids bi nekk si moom. mais Gris 2 man xeexam xeexam man man xeexam ñoruma te poids am sax ñoruma parce que man xam nga laa gën a aayal ah man damaa aay punkal xoolal sama parcours rek sama pat ba tey ma. Gris daan ma xamal leen de ndaanaan la maa koy nuyu mais Gris de màgg bëri la de. ooy foog ngeen di loolu gis nga màgg bëri. foog ngeen xàmmee loolu màgg bëri. waaw ah, li tax ma loolu. Hmm. liiral liiral combat bu mujj nga xool si ngay xam ne màgg bari dëgg la waaw non waxuma bu mu bëree Abdou Diouf de foofu rek laa mën a yem yemal foofu rek mais en tout cas daal ban ban ban xeetu bari la def xeetu bari boo xamante ne yow waaye déggoo li ma ban xeetu bëri la def ba xeetu bëri ba nga xamante ne nga ne xeetu bëri bii nii lii soxeeku na si bëri. loolu du door tànk de. padd padd nit ak dóor tànk bokkul de bu leen jaawaale padd ak dóor tànk xanaa xamoon ne padd loolu bokkul si làmb si bëri si si bëri bi loolu loolu loolu waaw Doudou Sané waaw ni ko nuyu waale Doudou nuyu bu baax <laughs> mais en tout cas daal sama objectif bi fu ne nii comme moom avant sama ngi fii day tamambaalu man maa ngi sama avant day tamambaalu comprendre nga wax amul ku mu bëreel man amoo ku ma bëreel comprendre nga te yoon yàgg ah na ñëw ñu bëre. budul Gris 2 budul Gris 2. non man Gris 2 kese laa soxla soxla kon daa da a jël sa siège samp ko biir Fass. kese kese laa soxla soxla ma keneen. Fass ak ni mu toll euh, moom laa mun a bëreel mu neex. Sénégal xam ne ma mun Sénégal xam doole bu ma am senegal xam njàmbaar bi ma am. retour Valdo nekk combat njarndéem. waaw parce que tey Gris Bordeaux am na combat te ñaari adversaire yooyu kese laa soxla waaw ñaari ñaari yooyu kese laa soxla Gris Bordeaux wala Gris 2. attaque. ci benn kër. laa soxla paas kese keneen kan laa war a bëri à part kooku. lu war a wax si moom quoi xamul la amul lu ma war a wax si moom moom non non ah. loolu loolu loolu loolu. damaa xam ne Fass ni mu toll ne ñoo fa nekk nga a bëri nekk fa nekk. ñaar ñoo fa nekk ñaar ñooñu laa soxla. Gris Bordeaux wala xam na koy ku ku ku tegg ñëpp jël Gris 2 moom xam naa ne moom. foofu moom. nee eh, daa mel ni daa mel ni daa mel ni daa mel ni ñeme woo mel ni tapet nga de. yow tey nan ngay nan ngay bàyyee koo xamante ne si koo xamante ne Fass ah, boo ne rab xëy na sax boo sax boo ne rab porte yi bu taxawee si porte ba bu bu bu ko soxlaa ibi da koy ibi nga may wax koo xamante ne bu demee bu tëjee porte bi du ko ubbeeku. <laughs> waaye bàyyi waay yow gannaaw. tijji. ah waaye porte am xam nga tey bëgguma wax si si sax xam nga. bëgguma sax wax si si combat bu xamu tax hmm. loolu du combat bu ma intéressé te defe naa li ma teg sama bët combat bu moo si gën a ndaw. Gris 2 moo si gën a ndaw. déedéet. Gris 2 moo si gën a ndaw. déedéet wax ma loolu de Papa Ndoye moo si gën a ndaw. da nga ne Papa Ndoye moo si gën a ndaw. non parce que li may wax dama ko ragalul xamoo tax dama ko ragalul. Hmm. comme maanaam du sama adversaire. du tax du sa adversaire kon bu ñu la seetlu kon pare bu jël ko. déedéet pare mu jël ko. Eh, man instant yi pare. waaw coowam loolu yàlla na ko yàlla may coow bu bëree bëri lu gën a bëree bëree bëri tey bu ma demoon bay jël magam laay jël. Mhm. ma demoon ba desul lu pour bëri ak moom kese mag ji laay bëri. ah déet déet déet. déedéet man bu ma demee tey si àdduna bay dem bay am lu may sóoraale si Lac Rose sawaay waaye yow ma demee bu am lu may róoraa Lac Rose mais daa mel ne wax man de te xamoo ngay toogal de toog ak bu lu may xalaat si moom tuuti rek man may waaye man may yor sa man samay mag yor ay gaal bu ma dem mbaali ji wala ma dem filaatu ji man da gis benn mbër mu mën si àdduna. est que est mu mu tawa fummee ko sampu jaaga. bu sampee jaaga sampu jaaga na nga xam ni mu koy sambal xam nga da nga xam nga da ngeen di jaawal lool dañuy jaawal koo xam mbër boo xamante ne. mbër bu mbër bu mu ñëwee ak mbër bu mu wul comme maanaam am na mbër yoo xam ne da leen kii amul sañ-sañ bi ñeme naa ko def lii mais doo mos a gis mbër bu jaaxaarlu Baldo di jaay sañ-sañ. kon su ma déggee kon Baldo ñemewul taxaw Lac Rose ñemewul taxaw Baldo samp jàll. Eh, sa ma laa ñemewu ma sa am na loo xamante ne bëgguma sañ débat bu xal si bi nga xamante moom laa bëgg wax boo buggee xam ndax sañ-sañ am na wala sañ-sañ amoo waaw combat baa ngi noonu ngir dëgg. <laughs> xale bu ne dégg naa ko nag tey laa soo gis ku taxaw affronté Gris 2 ñuy laam-laame mu ne magam Gris Bordeaux eh, eh. fi ñu toll ban message ngay lancé non message mooy lancé mooy maanaam tey man sama message guddul na gàttul tey ñaari adversaire laa soxla woon kenn ki dégg naa ne instant yi dafa arrêté bu mooy Malick Niang comprendre nga ñaar ñi ñaa soxla woon comprendre nga no man sama carrière laa amul combat bu yomb man sooloo man mosuma jël combat bu mosuma am combat boo xamante ne dafa yomb mosul nekk te oh. te nii nii nii nii nii ba may ba may baa bëri nii du mos am combat bu yomb waa boo déggee jël naa avance yi da nga dal sa gémmiñ maa la ko wax ñoom mooy jox ay combat ay combat yii nii nii nii sooloo ma si benn combat depuis daa bari na ngi nii waaye am pagaay du jeex ñoo bari na du ma bari na bari na commission pare nga ma la par benn par benn boo wéy de nga woo promoteur promoteur soxla ma si kenn. non non mais xam nga tey mënu ma dama xam nga dama bëre sa waay dama bëre ba yegg si fii tey kon tey bu ñu demee ba yegg si fii tey il est temps pour ñu may ñu loxo ñu bëre ñoom. comprendre nga dafa am loo xamante ne ñaak fayda baaxul. comprendre nga man bu ma toogee bëreewu ma toog bëreewu ma yàqalu ma dara maa ngi dund maa ngi lekk maa ngi naan. comprendre nga baax mais làmb dafa am yoon dafa am réalité comprendre nga est-ce que sunu morom yi ngay gis nii tey comprendre nga ay ñoom boo ñaa ban année lañ dugg ci làmb du 2009 2009 man ban année laa dugg ci làmb du 2011 te pourtant man sama temps seen tànk laa nekk kon tey lu ñu wadal mën naa mun a far voilà léegi lu pourquoi pas man sama morom yi bëri naa ñoom est-ce que xam nga sama morom yi ci làmb ji sama catégorie bu doomu daangu rek laa bëri lu kese laa bërelul waaw. waaw kooku kese laa bërelul comprendre nga mais kon tey bu ñu demee ba tey balaa làmb yëg si fii ngir de boobu nag daf maa ëpp ay kan la fi daan ko kan la fi daan ko ma yem na ma bëgg nga wax ma ko mu daan ko mu ko. waaw kan la fi daan ko ma yem ak ñam ñan ñu ma bëreel ak man ñi ma bëreel da ngay xool ñu ma bëreel ak moom ñu ma bëreel. képp ku mu bëreel ci ñoom dalaa ëpp doole daan la waaw ñu mu bëri yëpp dalaa ëpp doole daan la. yow man ñu ma sama mërëm damaa bëri ak ñoom daan leen ndax ay génération lañ ay nawle lañ. waaw man moo toogee ba Gris doole si àdduna kon sa waay mbir mi du foofu <laughs> ma man toolu man man ay toolu boo koy wax ni si ay ree may dem man fu ma man si ay man si ay champion laa ma tool nii man di ji jaaxaluma gudd jaaxaluma bu nekkee gudd defe naa Tyson kenn ëpp ko ci làmba ji kon nag bu nekkee ponkalaay amoon na am naa ñu ma nekkal ñoo xamante ne loolu jaaxaluma déggooluma la yow yaa si problème gis nga nga téye micro di ma laaj nii. Hmm. osé si di laaj sa xam sa question yu neex man noonu laa amee noonu laa amee osé pour wax si làmb te bu ma taxawee xam naa tànk mooy teg waaw mbër bu ma taxawal ci na xam naa ban tànk laa war a teg te li ma bëgg a wuti dama kay wuti mooy jël maam Góor Jóob lañ la fi da koy duma da ko da koy duma da koy door mu man leen kii ma daanee mu bàyyi làmb waaw directement waaw mu koy jëlee sa boobu dama blessé blessé bu métti mais moom ma liiru rek waaw boobu dama gaañu boobu dama dama demoon làmb dama gaañu woon waaw boobu moom ma liir boo xoolee sax ma jàppee ba yegg si foofu damay taxaw waaw <laughs> mais du ko nuyuwaale champion la ndax victoire kenn du ko xeeb te adversaire kenn du ko xeeb jàmbaar la parce que amaana sax ku nombre de combat mu bëri barewuma ko waa di ko nuyu bu baax champion la ndaanaan la maam góor ju di ko nuyu waa mais Gris kan la fi daan koo xamante ne kan la daan koo xamante ne laa de laa gis koo xamante ne daan na ko espoir boo xamante ne daan na ko la mooy laa njaay waaw mooy laa njaay à laa njaay kan la fi daan ñu mu daan yëpp ay mag lañ moo leen ëpp doole bu mu amee moom nan la def voilà déggoo lu ma buñ fi naxante gis nga làmb ji buñ fi naxante xoola parcours fu mu jaar ba fu mu yëg si fii tey ak ñan la bëril waay sa waay oo déggoo ma la woo sa waay déggoo li ma la ne danga ma limal rek ak laa jaay ñooñu la bëril ay mbër kaamil yoo xamante ne bëri naa ñii kon kii su ma dégg la fi bëril ñoo xam ne ay naan la yow ma koo ñemee jox du tax du ma damay paan si kawam. paan damay paan si kawam ba ngiroo. na nekk kalandoo de. waaye dama koo ñemee jox. nekk ma dama koo ñemee boo ma jëyee du ma lewee toog moom damay dox jàpp ko daan ko. marché nii dox jàpp ko daan ko. <laughs> non Khalil Baldo ñeme na Gris 2 nag. non Gris 2 man lu may sóoraale aw man dama xam li ngay li ngay calculé si moom laa calculé lu si moom. waaw mosoo koo dégg man maa ko laaj xam nga man deful lu ma war a tax ma koy laaj ci làmb. waaye ah, yow yaa bëgg a bëri mais dama dégg ni ñi naan amul combat. te dafa jafaree dafa naqaree wutal adversaire te man tamit bu feebar boobu ma dal man instant no mbir combat yi ma def nii man maa ngi dëkk bi di ginnaaw raay nekk sap sap nekk doomu Pikine sap si Pikine sap sap toolu ba tey nii nga am nombre de victoire nga ne ba tey nii gaañ pour nga bëri sa problème ndax lan ndax mosoo yolo moo amul bu sedd. boo mu buggee woo si bëre ñu bëre boo mu wooyee si xeex ñu xeex ñu jaat si bëre jàpp ngeen bu ñu bëre boo mu wooyee bëre saa ngeen bu ñu bëre kon tey lan la kon man lan laa war a calculer si Gris 2. dama am copain boo ne na làmb ji boo mënee xeex mën a bëre da ngay naqaree uta adversaire. léegi man lan laa war a si Gris 2. sama waajur li mu wax loolu voilà tey champion am kenn naataabale ko mais tey dangay ngay bëre champion doon champion. boo bëreeg moom daan ko fu bëri la lay yóbbu si àdduna sa champion dañ koy gën a confirmer da ngay gën a nekk champion da ngay gën a xam fa ngay teg sa tànk comprendre nga comme nga ñaar ñoo fi nekk si làmb moom mu toog man ma toog amuñu kuñ bëril comprendre nga te champion la la du wane na ay preuve nekk na si équipe bu mag man tamit si bu mag laa nekk comprendre kon tey na mag ji dar man tamit ñu dar comprendre nga ma jéem parce que tey moom amaana yoroon nañu bor waaw ndax Gris Bordeaux daa daan Tyson te maa waaw damaa bëgg mu indi rakam waaw waaw Tyson indi ma <laughs> di soo ko déclenché rek guerre guerre guerre Valdo yow pon ne français la yow loolu loolu daal laa bëgg hmm. waaw xaaral tuuti xam nga tuuti rek pareegu ma damay ñëw waaw damay ñëw xaaral rek parce que combat boobu dafa nekk combat bu war a taxaw waaw di nuyu ñëpp comprendre di nuyu sama mbokku séeréer bu baax a baax a baax foo ko la séeréer di nuyu bu baax comprendre di nuyu waa Pikine bu baax tamit du nuyu waa 22 Eli yëpp rawatina Baasul Baasaar Bocalan Munde Waffalia Bettendy Diamniadio Fellil Bawut xam nga di nuyu ñëpp daal Ngajoor Caalaan Siwo Falia Amunde Jogaan Fambin Bawut Fellir Yaamu Katam dañ ko nuyu bu baax a baax champion mu nekk euh, champion bu mag a mag a mag Katam Fambin di ko nuyu bu baax di ko xamale jàmm si yow champion boo xamante ne tey Yaamu Katam maa lay nuyu bu baax ku ma jàppale si laam aussi tamit euh, di nuyu sama idole luy coor mbalka maax waaw di ko nuyu bu baax a baax a baax nit ku sonn si man xam nga nit ku nangoo sonn si ay raxam xam nga di nuyu waa mar faaba ko yëpp comprendre nga di nuyu waa aussi tamit luy coor di ko mention spéciale di bu baax kooku kenn la si man aussi tamit kenn laa si moom xam nga aussi tamit di nuyu sama mag yi ñu mel ni Moussa sax waaw ku ma jàppale aussi tamit mooy Bounama Sarr di ko nuyu bu baax di nuyu Saliou Sarr waaw koo xamante kenn la si man aussi tamit Saliou Sarr waaw dina ñaanal yàlla yal na yàlla may ko bonne continuation dafa nekk sama nit koo xamante ne kooku mënuma bañ a wax si moom comprendre nga tey li li xarit di mun si dem rek da def te seentu si leen te des fois dañuy toog di waxtaan lu yaatu amoon si xam-xam si moyen si lépp di si jàpp kon kooku noonu dama koy ñaanal yàlla bu gënee kattan rek man damay gën a kattanu comprendre moo tax ma bëggal ko combat boo xamante ne combat soog la parce que Saliou dafa nekk nit koo xamante ne loo am mu bàyyi laa loo am mu bàyyi laa am tamit lu mu am mu bokk ko yow kon kooku nañ koy ñaanal yàlla comprendre nga sunu ànd ànd nañ ànd bu rafet ànd bu am fulla ànd bu am fayda ba joonu yàlla gi tey nii comprendre nga mooy sama meilleur ami ba nga xamante ne tey dañuy waxtaan comme lu ko jaaxal moom daf may woo man li ma jaaxal ma laaj ko comprendre nga mu nekk sama nit koo xamante ne aussi tamit mention spéciale quoi di nuyu sama yaay bu baax di nuyu waa Baasul ñëpp di nuyu sama mag yi di ko nuyu bu baax aussi tamit di ko xamal ne mention spéciale comprendre nga di nuyu sama soxna bu baax. di ko xamal du nuy waa kër gi kër gi mu dëkk nii ñoom ñëpp xam nga di leen mention sociale aussi tamit xam nga làmba demee noonu sport sport moo day du nuyu sama doomu day nuwaa carrément di ko xamal ne noonu la ñoo ngi ñëw léegi comprendre nga di woo promoteur yëpp nag man maa ngi nii maa ngi ay avance nag ñaari avance mais nag teew maa maa jël teew maa jël waaw teew maa jël <laughs> no <laughs> <laughs> non man man fu ne nii man corne ma signalé wu ma de man fu ne nii avance tey nii nii may wax ak yow nii avance mu ñëwee ma jël man moytuwuma kan fu ne nii ku mu mun a ku mu mun a ku mun a jël sama bakkan bi daal yooyu si yow des mbër bu mu munti doon laa waaw si si fulla fayda laa wax de si sport mhm. parce que à part moom doo ma bët à part sport moom doo ma bët waaw. mais sport nga ma mun a teg bët ñaar yi entraînement liggéey bëri ji ñetti ñi moom di ma teg bët mais à loolu moom pare nga si pare nga si moom parce que defe naa bi ma gisee gis yàgg na voilà noonu la demee nag. si waxtu dañu càppandaw émission bi kon Valdo ñu ngi bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu wér waaw noonu la di di di masawu ñi li xew si réew mi fan yi rek comprendre di nga xamante ne tamit ñi nga xamante ne yàlla jël na seen bakkan yàlla na yàlla xare àjjana suuf sedd si kawam ñi nga xamante ne tamit ñoo nekk au pouvoir ñu jëm dawal yërmande xool si nit ñi di déglu askan yi comprendre ki nga xamante tamit moo fi nekk aussi tamit ñu jëm ko yolo yolofal yéen bi mu xaw a yéen yéen nekku tuuti daal ba nga xamante ne tamit ñe askan bi dañuy gis seen bopp ñu yaatal mbir mi daal ñu bañ koo def porte benn nekk parce que porte benn nekk moom gaayen ñii dañuy bëgg a dugg ñii bu ñu dugg waaw ñu nuyu ñëpp daal parce que ñun tamit wax dëgg fa ne yàlla ñu ay politicien moo tax mënuñ si sori mais mun nañ si wax si bu ñu gisee loo xamante ne tey suñu xalaat bu gàtt mun nañ si wax di nuyu ñëpp xam nga ku nga xamante ne daal moom la fi yàlla war a teg yàlla na la yàlla jox réew mi si jàmm ak salaam ñi nga xamante ne tamit foofa la seen wërsëg yem ñoo xam ne fa la seen wërsëg yem parce que wàllum teen la rek si pindi nga yem voilà mo di nuyu ñëpp nag di la aussi tamit di nuyu wasaare di lay ñaanal seen boo xamante ne bu ngeen dem ba teg ay télé ay xam nga yàlla bi yow mi nga xamante ne comme coono bi nga ci daj ñi yàlla fay la sa xol yaa sa doomu ndey yaa xalin waaw yàlla teg leen si yoon boo xamante ne tamit parce que fii loo liggéey rek ngay am loo liggéey doo ko am nit nag mun naa liggéey bañ a am nag mais nga liggéey ko am ko moo gën waaw parce que gis nañ coono gi xam nga gis nañ oyof bi ak possibilité bi ak sawar gi aussi tamit parce que lii nit ki looy def rek comprendre am si gëm-gëm am si oyof gëm ko rek yàlla di la woon léegi léegi du yàgg mention spéciale di nuyu bu baax a baax. Hmm. di ziaraat ñëpp ñëpp seen di bëggee nag famille Ndong su ma nee famille Ndong nag bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn waaw mooy famille Ndong nag suma taaw suma mag suma lépp Lamine Ndong Pape Ndong Anson Ndong Moustapha Ndong nee naa la képp ku sant Ndong rek maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu wér-wér tout droit lay doon. bondangaan